gannaaw coow lii ay kàddu jip di wane ni Touba mi ngi ci ginnaaw Moustapha Cissé Lo Serigne Modou Bousso Dieng weddi ba mu set wecc. dégg naa ñuy wax ne eh, Touba ñi ngi jàppale diw Touba mënul bokk ci wax ju bon Touba mënul bokk ci wax ju ñaaw Serigne Touba questionné wax ju ñaaw Serigne Touba dafa aaye wax ju bon ba dernière instance ba dernière instance yaakaar naa kon. Euh, euh, du res du respect sax ci Touba ñuy wax ne Touba ñu ngi jàppale diw Touba jàppale wuñ kenn ci wax ju bon Touba ñu respect respectable ñoo fi nekk Touba ñu respectueux ñoo fi nekk Touba ñu ñu ñu ñu responsable ñoo fi nekk kon ku wax sa wax ju bon ju toll noonu ça n'engage que toi Touba amul responsabilité ci loolu ma yaakaar ne aussi it nag euh, njiitu réew mi dina ci tirer ñoom ñaar ñëpp muy moom muy njiitu réew mi kenn ku ci nekk dina ci tirer enseignement bu am solo njiitu réew di dina xam ne moom mi doon saaga wax kër Serigne Touba di moom mu koy làkk ba tax tey Touba digganteem ak Touba mel nii moom jaru ko moom tamit dina xam ne moom mi doon saaga waa kër Serigne Touba yi ngir njiitu mi dina xam ne jaru ko parce que en réalité mën nañu wax ne problème yu bari tey yu am yu ñu gis yu ñu constaté moom mii tey moo ko waraloon man suis victime sëñ Assane Mbacke victime sëñ Abdou Fatam sëñ Falloum Serigne Touba mi ngi ci kon yaakaar naa président woon rectifier loolu reprendre Touba xam ne Touba du ñu ay noonu. Touba ci Sénégal lañ bokk il a intérêt seq ak jamm Touba te mom mi nekkoon source problème ak Touba tey président cherche va tout trouver pour euh, reprendre Touba euh, ci loxoom te def jàmm ak Touba parce qu'on ne peut pas gérer le Sénégal sans Touba c'est impossible kon euh, je l'invite je l'invite monsieur le président de la République kilifa dîner dîner, responsable politique Serigne Modou Bousso di feussel né Moustapha Cissé Lo bokk na ci li gàllankooroon président Macky Sall ci deuk bu sel bi di Touba mais c'est sûr bien sûr bu njëkk Touba ak Macky Sall relation yu rafet lañ am bim commencé nak di saga serigne si Macky Sall di protéger mais ci lañ tidd sur Macky Sall commençant par sëñ Modou Bousso commençant par kenen ak keneen ak keneen ce n'est pas un appel de pied je n'ai pas besoin mais je fais un constat et puis yaakaar naa ne euh, njiitu réew mi xam te dina ci baye xel te it c'est une occasion pour lui pour reprendre directement ak c'est que ak jam ak ci ñeneen nit ci yeneen tête yo xamné si dina tax ëllëg ni mu amee fépp mu amé ni Touba chaque fois qu'il y a défaite toute la presse titre Moustapha Cissé fait encore fait encore perdre Macky à Touba. kooku du man maa ko daan wax ñoom ñoo ko daan wax yow Touba nga dëkk keneen Touba dëkk xam nañ li fi nekk xam nañ loolu moo fi ma si nekk du président Macky Sall mooy problème bi mais ñi ko fi nekkaloon tey mu leen di cautionné ñuy dal ci kaw sëti Serigne Touba ak mbokki taalibe yi ñoo ma si nekk problème bi. ci waxtaan mu amal ak Dakaractu Serigne Modou Bousso Dieng di wax ne kàddu yi li muy bari bari ñaar ñoo ko ci naq di lool benn bi mi ngi jëm ci mun Mountakha bi nga xam ne tudd nañ ko ci kàddu yi. li li waral suma réaction surtout tey. du lu mu wax problème bu mu am ak euh, Macky Sall wala bu mu am ak keneen mais li ma metti rek mooy tudd gi mu tudd ki ñu yaakaar Serigne Touba ma defee nit soo ko yaakaaree di nga ko wekk ma defee nit soo ko yaakaaree di nga ko warmaal waaye wax say saaga tàmbali ci turu yàlla bismillahi rahmaani rahiim wax say saaga tekki Serigne Mountakha ba noppi nañ ko dégtal loolu ma defe ne mérite na képp ku vraiment nga taxaw ci donc yaakaar naa ce combat là dou sax combat politique mais maintenant c'est un combat de principe euh, il est temps qu'il euh, vraiment qu'il arrête ñaarelu nakaram mi ngi jëm ci kàddu yi nga xam ni honorable député yëkkati na ko jëmale ko ci première dame mu gis ne loole rafetul te yellul. gën ci mélanger euh, soxna si njiitu réew mi c'est valable qu'on l'attaque politiquement Moi, dama koy attaqué parce que je suis opposant c'est normal Mais ce n'est pas valable qu'on koy une ci une insanité parce que la première dame c'est la maman de la république elle mérite au moins ce respect Et quelle que soit la situation la première dame première dame musulmane du Sénégal même lolo, comme nekkul ci yow valeurs timides, en tout cas l'histoire le retient euh, Abdoulaye Wade suñ talibé, soxnam du woon du jullit Abdou Diouf xaw ma suñ bokk lan la suñ bokk dëkkandoo la soxnam du julit sengor suñ bokk chrétien soxnam du julit mais tay notre adversaire Macky Sall la yalla dogal soxnam nek première dame première dame musulmane bu nekul valeur tamit nek constat bu histoire retenir donc ça mérite au moins ce respect bi topat moy amna na nu ñuy traité les premières dames de telle sorte que ñu fileuse ñu fileuse ba kenen kay ñëwaat encore moy soxna si keneen ku mën a dina té ci ñëpp té su boobaa du internation bi kon bañ ko dugal ci yenn wax yi tax ëlëk mu am ay réserve yakarna c'est important pour tout pas soxna si Macky Sall soxna si Macky Sall ben qualité bi ma ko xamal moy moy première dame première dame musulmane point c'est ça que l'histoire retient mais toute première dame bon mën nañ ko attaquer nak politiquement c'est valable parce que nim mu borom kërëm njiitu réew mi nga xam ne moom dafa jaxasoog moom attaque la la politiquement c'est valable comme man ni ma koy defee ni ko keneen defee mais nag attaque ko de cette sorte ci yenn wax yu ñaaw yi kooku valable ci benn première dame te defe naa képp kuy citoyen war nga ko war nga ko ñaawlu parce que première dame dafa am rôle maman voilà ci nation surtout une fois encore que ñu rendre ko dans ces dans dans certaines circonstances difficiles de telle ko muy mu am réserve ci population yi su boobaa pertement sénégalais yëpp la jamono jii mu fekk ko ci dëkk bu sell bi du Tuubaa muy wax ne lu tooñ rëy rëy mënees na laa jéggal bu dee jéggalu nga xanaa mu tuubal Sénégalais yi tuubal ñu déjà ñun mbokki taalibe yi nga xam ne mi ngi tuddoo sëñ Touba ba noppi wax loolu ñu koy dégg surtout ci internet dañ koy téye te je répète wax yi bari na wuute na ñaaw na de telle sorte que nee naa ku wérut sax bu ko doon wax tey ku wérut ku ku ànd ak yar du ko waxee noonu kon yaakaar naa su ko waxee ça nous engage nous kon yaakaar naa war nañu jégalu ñun tamit amel nañ ci ñëpp amel nañ ñëpp njégalu te ñu ngi ciy jégalu ñëpp